bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu buur yàlla dolli nu ay maqaama yàlla bismil ilaahi julli teew yépp ñu ngi yëkkati ci sunu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ ci kaw suuf ñu ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak ko ci rakkam di Sëriñ Abo Mbakke mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér li nuyu mbooleem rakkam yu tedd yi fi teew yépp buñ ci tuddee Cheikh Mouhamadul Bachir tudd ci Cheikh Abdoul Fatah mi nga xam ne mooy yor kàddu kër gi mu yóbbaale njaboot gépp di nuyu ci njaboot ak Sëñ Tuubaa gi fi teew bu ci tuddee Sëñ Cheikh Mbacke xalifatu Cheikh Xaadir mu yóbbaale mboolem njaboot ak Sëñ Tuubaa di nuyu ki fi teewal njiital réew mi di ministre Massar Ba di ko nuyoo di ko yóbbante bu nuyoo ci président di nuyu mbooleem kilifa diine yi fi teew di nuyu ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci këri diine yi di jot li kàddu sëriñ bi nag xam naa ne lu gàtt lay doon ndax li ko waral mooy jotaay bi dafa xat tey. mooy jotaay bi dafa xat tey. ba nga xam ni. Cheikh Mouhamadou moom Cheikh Mouhamadou Mountakha. Euh, hôpital bi nga xam ni. hôpital bi nga xam ni. Cheikh Ahmadou Bari yu tabaxoon na ko. ca Ndindi. te muy dem di ko ubbil tey. moo tax jotaay bi xaw a xat. kon du ma yàgg du mën a yàgg. te lim ci waroon seer itam. suñu ñaari kilifa yi bëgg a wax. ñaari kilifa yi bëgg a wax. di sëriñ Mouhamadou Mamoun. moom Cheikh Mouhamadou Fadal. ay waxam. moo ëpp solo ay waxam. te Cheikh Ahmadou Rafaïlu. mi nga xam ne. moo war a wax ci turu sëriñ Abdoul Fatah. wax ci turu sëriñ Abo. moom itam ay waxam. àdduna sépp ko jariñoo daa làmboo dëgg. làmboo njëriñ. kon daanaka ay waxam. la Cheikh Mamadou Fadil Mbacke daa wax rek. la ni aw yoon boo ci amee mag am ci rek. mën nga caa noppalu. waaye jotaay bi itam. waaye jotaay bi itam. lu mu ci waroon a wax rek. ñoom danañ ci mën a kon nag kaddu jënd rek lay doon. yu bàyyeeku ci Cheikh Mouhamadul Mountakha jëm ci njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gépp ndax li mu seere woon barki démb rek ba fa sëñ Abo demee da ko wax ni ko damay sant yàlla bu baax ci taw tawfeex yi ma am ci Cheikh Mouhamadou Fadal mu ne nag yéen njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gépp itam na dama leen di wéttilikoo ci liggéeyu Serigne Touba. dama leen di wéttilikoo ci liggéeyu Serigne Touba bi. ndax seen yitte. ndax seen yitte. seen posture. ak seen posture. ba li war a mel ni. ba li ngeen war a man ngeen mel ni. loolu nag. ñoom ñu bokk ñoom Serigne Touba. moom ñoom ñu bokk ñoom Serigne Touba. ñun ñëpp mën nañ ko seeral. ñëpp nañ ko mën leen ko seeral. kon nag li ñuy ñaan. Serigne Abo suñu borom bàyyi ko fi. ba bi nga xam ne magam yu teddee. ba bi nga xam ne magam yu teddee. ndim Cheikh mu Moussa Fadal ak Cheikh Mamadou Lamine Baara tàmbali woon ko ci biir kër gi lépp mu àggale ko ci barkeb Sëriñ Touba ci barke Cheikh Mamadou Fadal ndax Cheikh Mamadou Fadal day jëmm joo xam ni adduna sépp xam nañ ko. adduna sépp xam nañ ko. démb. démb. ku jaar ci biir dëkk bii. ku nga génn dëkk bi. seen nit ñi. pëstéef bi ñu àndal. ak dogg ñu àndal. ngir ñëw ci bisam bii. da nga xam ne lu mu jëfaloon sëñ Touba. sëñ Touba fay na ko ko. ndax kat. màggalu Touba gii. moo ko woote woon ci dëkk bi. ko woote woon ci dëkk bi. wootal ko sëriñ bi. waaye sëriñ Touba fayewaat na ko ci bisi bii. ndax bis bii kat. àgg na foo xam ne. adduna sépp la yéem loolu nag leen rek la ci ay mayam ak xar baaxam lépp lu ci waay yéene te am ci pasteef boo ko ci fasee sunu borom dana la ko defal fi muy jeexale kàddu yi nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha mu jëm ci taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp mu jëm ci taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp mooy fàttali rek lay doon fàttali rek lay doon ndax moom. li ko boole diggam ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi. li ko boole njabootu diggam Sëriñ Tuubaa njabootu Sëriñ gi. mooy digal leen. mooy digal leen. ak tere leen leen. ndigal gi nag. ndigal gi nag. mooy tànn la. mooy tànn la. la nga xam ne. la nga xam ne. wóor na ko bu ci nit ñi jaaree. jaaree. seen njëriñ lay doon. seen lay doon. ko bu ñu ko itam. bu ñu ko moytoo itam. seen lor seen lor du ca nekk. loola nag. loola nag. moom miy digle. digle. di tere. di tere. mooy xam li gën ci ñun. moo xam li gën ci ñun. xam fa ñu war a teg suñu tànk. xam fa ñu war a teg suñu tànk. ndax sëñ Tuba dafa dafa waxoon ne. ndax sëñ Tuba daa waxoon ne. ki war a digle war a tere. ki wa ki war a digle war a tere. bu diglee. bu diglee. bu nit ñi jëfee. bu nit ñi jëfee. mu wàcc. mu wàcc leen. ñëpp jariñu. ñëpp jariñu. bu diglee. bu diglee. ku defut. moom mu wàcc. moom mu wàcc. leen lore dal ci seen kaw. leen lore dal ci seen kaw. loolu nag. loolu nag. na ko kilifaam yu jëkk yi daa defee. na ko kilifaam yu jëkk yi daa defee. lépp lu mu gis. lépp lu mu gis. tàbbi ci biir yoon wi. muy tàbbi ci biir yoon wi. dara wuru caa nekk. dara wuru caa nekk. te wuru caa nekk. te wuru caa nekk. dana ci yëkkati kàddoom. dana ci yëkkati kàddoom. ñaax ci nit ñi. ñaax nit ñi. soññu leen ca. soññu leen ca. ñu bañ caa farlu. ñu bañ caa farlu. ñu gën caa farlu. gis na nag loo xam ne. gis na nag loo xam ni ngi tàbbi ci biir yoon mi ngi tàbbi ci biir yoon mi rawatina ci yii bu fi jóg nag bu fi na na ndax seytaane ndax seytaane Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne yaari yaari inna rek fi in inna inna ak innama ak innama ñu ne inna innamal mu'minuuna ixwatun. innamal mu'minuuna ixwatun. ak la. nee pay la. ak tey la mu ne nax gi si. inna seytaan lakum aduwwun nag. mu ne nax gi inna seytaan lakum aduwwun nag. tey gi ci mënta yàq tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun. nee na mënta yàq tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun. loolee rek lay fàttali nag. loolee rek lay fàttali nag. diggam ak. diggam ak. bokk jullit yi. bokk ak bokk taalibe yi. ndax yëg na fan yii ñuy wax ne. ndax yëg na fan yii ñuy wax ne. ay kaddu yu jóg. di wax ci loo xam ne. di wax ci loo xam ne. day mel ni luy jaxase tariixa yi. day mel ni lu jaxase tariixa yi. te loolu taxu goon a jóg. te ne loolu taxu goon a jóg. Serigne Touba. Serigne Touba. bañ ko laajee ay laaj. ko laajee ay laaj. ko ne ku sa njaboot. laaj ko ne ku ñuy sa njaboot. daa waxoon ni. daa waxoon ni. képp kuy wax laa ilaaha illallah. képp kuy wax laa ilaaha illallah. Muhammadu Rasulullah. kooku sama njaboot. kooku la bokk. ñu ne ko fu yoonu murid àgg. mu ne mu ne fépp lislaam àgg. fépp lislaam àgg. kon kooku xajalewut. waaye day boole. waaye day nee na nag. nee nag. dégg na ñuy wax ay kaddu. dégg na ñuy wax ay kaddu. du jur ay wax yu bëree bëri. loola nag. loola nag. nañu xam ne. nañu xam ni. mi ngi koy gën a tere taalibe yi. mi ngi ko gën a tere taalibe yi. nañ tënku ci ndigalu Serigne Touba. nañ tënku ci ndigalu Serigne Touba. te seen te Serigne Touba dooy leen sëkk. te Serigne Touba dooy leen sëkk nag. ñuy waxtaane baaxu Serigne Touba. ñuy waxtaane baaxu ku ñu mën kenn ku ñu mënti wax ci moom lu baax. ñu mënti ci moom waaye wax joo xam ni. di indi fitna. di indi fitna. di yëkkati ay dënn. di yëkkati ay dënn. loolu nee na képp ku ko def. nee na loolu képp ku ko boo jàppee ne sëñ Tuubaa ngay yëkkati am. nag. na nga xam ne. na nga xam ni. yaa ngi suufeel nguuru sëñ Tuubaa. yaa Tuubaa. mbirum sëñ Tuubaa. te mbirum sëñ Tuubaa kenn mënu ko suufeel yàlla yëkkati na ko ba noppi sëñ tu sunu bon daa wax ci alxuraan ni wala tasubul si ni yaddoxoona min doonillaahi fa yasubullaaha aduwan bi xeyri xilmin moo tax sëñ Tuubaa dadaa wax ni képp ku ma waxtaane képp ku ma waxtaane ci barab buñ ma ma xamewut luñ ma wax rek yaa ma wax rek yaa koy gàddu ndax ki xeetu Sëñ Tuubaa xëyut. ndax ki xeetu Sëñ Tuubaa xëyut. la Sëñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye daa wax rek. kooka. la ci gën. la ci gën. mooy nga maanu ci mbiram. mooy nga maanu ci mbiram. kon nag sëriñ bi nee na. ñu ngi ko bàyyi xel nit ñi bu baax a baax. te xam ne alxuraan. daa wax ne. wattaqoo fitnatan. wattaqoo fitnatan. laa tusiibanna allaziina zalamoo. laa tusiibanna allaziina zalamoo. minkum xaasatan. wala moo ana la sadiru riqab nee na daay ak daay nee na ak daay wattandiku leen ko fitna ndax boo xasee ba tàkk ndax bu xasee ba tàkk naa imatun ndax man laa fitna man xasaa nee na fitna na fitna dafa dafa gëmmu di nelaw dafa gëmmu di nelaw nee képp koo xam ne na képp koo xam ne yaa ko yee nag yaataal fitna kon nag loolu baax sëriñ bi nee na mi ngi ko bàyyiloo xel bu baax. te borom kër gii kat. te borom kër gii kat. daana wax ne. daana wax ne. nit ki. nit ki. li li nga xam ci moom ngay jàpp. li nga xam ci moom ngay jàpp. bañ a jàpp li ngay dégg ci te bañ jàpp li ngay dégg ci moom. nee na koo xam ne. nee koo xam ne. da jàpp li nga dégg ci nit. da jàpp li nga dégg ci nit. bàyyi la nga xam ci moom. la nga xam ci moom. kon la nga dégg daa gën kon la nga dégg daa gën a neex sam nopp daa gën a neex sam nopp daa gën a neex sam nopp kon nag loolu mat a watandiku la Sëriñ Tuubaa daana wax ne Sëriñ Tuubaa daana wax ni yaar rek rek ma yéem fu ñuy sanc fu ñuy sanc ak ku ak ku ñuy tudd nee fu ñuy sanc nee fu ñuy sanc samay sama xel a ci gent ba samay nga dem ci gent ba nee na ku ñuy tudd tam nee ku ñuy nag sama xel a nga dem ci faatu ba sama nga dem ci faatu ba ndax nee na fu ñu sancut nee fu ñu sancut du gent nee na ku tudd ku dund itam. nee na ku nag. doo faatu doo faatu. kon nag nañu xam ne adduna. kon nag nañu xam ne adduna. kenn soxla kenn soxla. li am solo rek. li am solo rek. mooy sax ci lu baax. mooy sax ci lu baax. ak liggéeyal sëñ Touba. ak liggéeyal sëñ Touba. te loolu bu ñu ko defee. danañ ci daje tawfeex. danañ ci daje tawfeex. daje ci ndimbal. daje ci ndimbal. roy ci borom roy ci borom kër gu tedd gii. roy ci borom kër gu tedd gii nag. nga xam dafa jëloon léppam. nga xam dafa jëloon léppam. jébbal ko sëñ Touba. ko sëñ Touba doy ko sëkk. sëñ Touba doy ko sëkk. geesuwu dara geesuwu dara. te lu mu mës a doog ci sëñ Touba. te lu mu mës a doog ci sëñ Touba. wala nit andi ko ci moom. wala mu andi ko ci moom. bala nga foo jógee. bala nga foo jógee. loola faju loola faju bu dee jàngoro. bu dee jàngoro. danga tàggoog moom. danga tàggoog moom. bu dee aajo. bu dee aajo. dana faju dana faju kon nag ñuy ñaan ci darajaam. kon nag ñuy ñaan ci darajaam. ci daraja yi bis bii. yitti ji fooy indaale. suñ borom faj ko. ci daraja Sëriñ Tuuba. ci daraja Sëriñ Tuuba. barke Cheikh Mamadou Fall wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Mamadou.